yéen ngi ci sunu people TV di chaîne YouTube bi leen di jox xibaar yi gën a wóor te leer wéy leen ci abonné ngir ngeen mën a dund xibaar yi wóor te leer moo xam actualité politique sport people buzz société lépp luy xibaar bu gaaw fii rek ngeen ko mën a amee bu ngeen bëggee jàllale seen ay publicité ci chaîne bi moo leen lu gaaw ci sunu numéro service commercial 77 732. 12 35 bu mbokk yi xarit yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci euh, sunu People TV ñu dellu siwaat ak yéen ci li gën a fës ci internet bi li gën a fës ci internet bi nag bokk na ci coow li nga xamante ne moom moo judd ci diggante man boobu di ki nga xamante ne moom moo di euh, moo Gates ak ki nga xamante ne tamit moo di euh, artiste bi di Viviane Chidid seen coow nag mu ngi tàmbali ci jamono bi nga xamante Viviane war na daal di dem fi nga xamante ne moom di Las Vegas ci événement bi nga xamante ne Mo Gates moo ko organisé muy Fashion Week bu Sénégal foofu ci biir Las Vegas ñu gis nag moo Gates ci événement bi def ci invité artistes yu bëree bari ku ci mel ni salaam Diallo ku ci mel ni Aïda Samb ku ci mel ni Ndioletal ku ci mel ni aussi troupe bi di Soleil Levant ak ki nga xamante ne moom moo di Viviane bi nga xamante ne moom moo waral coow li waaye nag coow bu na bëri wax mun am solo moo tax nag ñu indi leen li nga xamante ne moom moo di taxaw seetlu ci seen diggante kii di moo Gates ak kii di Viviane ñu ngi waxal lu ne Mo Gates di ko toppee lu ne di wax ne dafa xamadi dafa nangam dafa nangam ni muy def xaalis baaxul loolu je pense que problème bi nga xamante ne moom ak digganteem moom ak xaalis bi loolu moom la concerné waaye li nga xamante ne war na ci def taxaw seetlu mooy diggante moom ak Viviane diggante moom ak Viviane dafa am loo xamante ne dañu koy war a tuddee ñàkk professionnalisme ñàkk professionnalisme bi nga xamante ne am na benn ci Viviane waaye tamit am na benn tamit ki nga xamante ni moom moo di Mo lu tax ma wax loolu Viviane defe naa ne artiste ci boppam moom hôtel ba muy daal dafa am koo xamante ne moo ko war a lijjanti muy manager am waaye artiste bi warul lijjanti contrat bay lijjanti li nga xamante ne moom moo di hôtel ba muy daal waaye li ñu gis ñun ci suñu ay bët ni Viviane ci boppam moom moo doon lijjanti contrat am bi nga xamante ne séq na ko ak Mo Gates gisuñu bu ko topp gisuñu benn attaché de presse bu ko topp nga xamante ni moom moo di conseil en communication ko topp lu dul doomam bi di Zeyna moom rek moo ànd ak moom daal di dem fi nga xamante ne moo di foofu ca hôtel ba ca biir suite bi nga xamante ne foofu la waroon daal te mu ne du fa daal lu tax du fa daal dana ci ñëwaat waaye li nga xamante ne moo jar a taxaw seetlu mooy ana staff Viviane ana manager Viviane ana chargé de com bu Viviane ana conseil en communication bu Viviane loolu la ñu war a njëkk a laajte ndax artiste warul sax waxaale contrat bay fekkee sax fu ñu wax mbirum contrat contrat manager moo koy dox wala ki nga xamante ne moom moo sa communication wala bokk sa attaché de presse ñooñ ñoom war a lijjanti lépp lu jëm ci mbirum kayit parce que mbirum contrat dafa xaw a doy waar waaye ñu li ñu gis mooy Viviane ci boppam dafa mel ni mbir mi yëpp moo ko doxal boppam ndax Mo Gates bu demee tey ba fay résilier li nga xamante ne moom moo di contrat bi di wax ne Viviane mënatuma liggéey ak moom war fa woon fekk sax Viviane waaye manager Viviane la waroon waxal léegi nag ndax Viviane am na manager am déet loolu moo jar a laajte ndax contrat bu mel nii nga war a bàyyeekoo Sénégal war a dem fi nga xamante ne moo di ci États-Unis ca Las Vegas war fa jouer war nga signé contrat balaa ngay dem war nga xam clause contrat bi ni muy demee waaye tamit war nga xam exactement ban hôtel nga war a daal bi ñan ak ñan nga fa war a nekkal ko xel waaye erreur la boo xamante ne erreur de staff la maanaam ana staffu Viviane bi nga xamante ne ñoom ñoo waroon wax ak moo Gates waaye du Viviane moo waroon wax ak Mo Gates ci kaw loolu mën nañ jàpp ne moo Gates moom li nga xamante ne moo ko war warloon ak Viviane def na ko ndax taxaw na yor ay kayit ne billet bi nga xamante ne jëndaloo naa la ko muy first class d'accord nañu ne sa billet aller retour yëpp jël nga ko Viviane ne waaw mu ne ko otel bi nga xamante waroon nañ ko def man ak yow séqoon nañu ko pour nga mën a dal ci otel bi nee nga bëggoo fi dal mu ne ko waaw mu ne ko contrat bi li ñu waxante woon muy 3 millions yi jot nga sa xaalis mu ne ko waaw mu ne ko waaye nag mënuma liggéey ak yow foofu la coow li tàmbalee moo tax ñu jàpp ne Mo Gates dafa réew waaye dañuy jàpp ne Mo Gates réewul ndax promoteur la businessman la moom bi nga xamante ne jël na artistes yi artistes yëpp ci benn hôtel la leen dalal ñoom ñëpp muy animateur bi di Boubacar jàlloo di ñoom Saneex di Salam jàlloo di Aïda Samb di ñaaxarañ loo di ki nga xamante ne moom moo di Ndiolé Tall waaye dégg nañ ci ay wax tamit ñu ne woon bokk hôtel bi ak ki ne moom moo di ñaaxarañ loo lu tax loolu beneen problème la boo xamante ne xëy na diggante Viviane ak ñaaxarañ loo ñoo ko séq ñoom ñaar waaye ci jàngat bu ñu mën a def mooy Viviane elle a été fautif Sénégal nag bu coow amee dañuy xool ki nga xamante ne moo ci gën a faible ñu bëgg ko faral waaye war nañ taxaw def jàngat Viviane ana sa staff Viviane ana sa manager Viviane ana sa conseiller en communication Viviane ana sa attaché de presse loolu yëpp gisuñu ko ci biir événement bi dégguñu ko ci biir événement bi yow yaa demoon di wax ak promoteur bi yow yaa toog bi moom lay résilier sa contrat yow yaa toog sa manager toogul a fu ne dem nga fa ak Youssou Ndour dëkk bu ne taxaw nga fa états boobu kenn gënu la miin contrat bu ne joué nga ko lan moo la dal ba nga nangu contrat bii nii li la ci dal ni daal di la ciy dal loolu nag jàngat la boo xamante dañu ne woon nañu ko waxtaanee ci sunu people TV ku ci nekk nag am nga ci sa xalaat waaye ñun ni ñu gisee en tant que site people en tant que ñoo xamante ñu ngi nekk ci biir métier métier bi di ci yëngu war nañ ci mën a joxe suñu xalaat dañuy jàpp ne kon Mo Gates businessman la Mo Gates koo xamante ne la li mu bëggoon ci événement bi réussir na ko événement bi am na coow événement bi artistes yi mu doon wax ñëpp ñëw nañ ba mu des Viviane donc moom mun nañ jàpp ne réussir na li nga xamante ne moo di événement waaye ki nga xamante ne moom moo di Viviane moom li ko dal nii erreur la boo xamante ne war na toogaat xoolaat carrière bu baax a baax ndax lu mel nii di dal ku toll ni Viviane ak ni mu nekk star ci Sénégal États-Unis la mu fa def du yoon kon nag mbokk yi loolu moo nekkoon taxaw seetlu bi nga xamante ne def nañu ko ci sunu People TV ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax wéy leen di abone ci chaîne bi